ñu seet si ki nga xam ne mooy Abdou Lahad Ndiaye médecin yi ñu gën koo xam si Abdou Lahad Ndiaye soppu sëriñ Abdou Lahad Mbacke sama cameraman soo bëggee xam li may def si biir fekk ma ci biir ndax mbir mi moom fii dong la. moom ñoo ngi yëngu si njaay njaay mooy njaayu mercerie yi mm-hmm. loo xam ne lépp loo xam ne téer yi soxla nañ ko mm-hmm. ba di ko utiliser di ko def si seen yére mu gën a rafet boo ñëwee fii da nga ko fi fekk ndax Abdou Ahad Mbacke borom daare kaamin suñu lépp moom la ndax lépp moom na nga ko jëmale tuddaleel ko ko mm-hmm. waaw fii nag boo ñëwee si diwaanu marché Guédé foo laaj place bi bàyyi laaj mi sida après dinañ ko wan mhm. lii bouquet yi ngay gis nii waaw lii si xeetu bees bees yi la boo ko dañuy jaay gantir ba pare boo ñëwee ñu tegal ko lii ah tegal ko kon yow maanaam dan lay ñëw jënd ba pare nga wëlbati ko tegal ko tegal ko ko waaye kon askan wi yéen a ko déggoon kay moom macha mooy bomb moom mooy bomb waaw mooy bomb mooy bomb eh, ñun lépp lu bees loo xam ne nit ñi bëgg nañ ko rek dañ koy dem wuta ji pour jox leen ko quoi ñoom ñoo tax ñuy sonn ñun ñoo leen fi bàyyi wax dëgg yàlla maa bëgg seen bopp sa yàlla tax ñooñu mënu ma leen a fay nag ma leen di sant di leen gërëm Touba diwaanu marché Guédé mhm. soo laaj ci place bi bàyyilaat mercier dina la ko wan 78 105 21 14 bu nekk Tigo bi tamit 76 752 57 48 incha allah rabi boo ñu si wooyee da nga ñu jot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 def bës gaay sinab bi taay taay dal jaam la ay gisoo tax yi ma ci am nii gaay man kay saay naa la def no xam xam xam selfie yi sax gaay gaay jël leen jël leen mooy naay waaw jëlal fii ngeen. seen bi baax laa bëgg man. dafa nice de nice boo ci amee taf nii ngeen. waaw day jaamu de. nice. ah nice trop. Oh, oh. yéen yéen. il eh. eh, waayam ndaw Samba. yéen man ngeen yàpp wala da ngeen maa miin ah yéen lan laa waxante woon a yéen eh wàccal téléphone bi yow lan laa waxante woon ak yéen ah li ma leen wax fii ma ma waxante koog yéen ba mu leer nañ ngeen toog fii di waxante ay ay whatsapp ak di waxuma leen woon ah ci côté Sinap ak côté Dendanoog Réseau waate day dakk ci kor. bëri nga nga ne lan fan laay aju. yow man bu may aju fu may yéeg. kay mel ni soble bu ndëm nii. muy eh. Samba kay may leen may leen mais yow yaa ngi wax duma tifli. eh boo ma waxaatee boo ma waxaatee tifli ma ray la yow. waxaat ma tifli rek ma ray la yow. waaw waaw kii. dina yéen dinaa leen yitti ba ngeen nooy. Eh, man ak yéen ci quartier bi. may leen yow père dama mu tomee nii jàmm nga mel ne kuñ fi teg daw ni yow yow koy wax fi teg daw yow. kan fi teg daw yow. loolu mooy. yow ngaam yi woo. waaw kooku. sama rakk ba jigéen. waaw ak tànk yu weex yi. jëlal ma ko jëlal ma ko jëlal ma ko ñeexoon dama daal yow aju rek. sëñ Ndao sëñ Ndao. laay sëñ Ndao. xoolal yaa baadoola. bilaay mooy baadoola sëñ Ndao. yaa baadoola. bilaay mooy baadoola sëñ Ndao. woote woote ah. caabi ji sax bu ñuy dem duñ ko roon daanaka lu jëm xeetu ndogu sax. programme bu ci dara dara dara affaire de ndogu yi. ki ma ko ci waxoon dara dara dara dara la ci defaroo ah xorom man daal xam na もなにeh waaye man dama góorgóorlu àggale sama koor gi tey mënumaa dem mënumaa dem mënumaa dem day gaañu rek mënumaa dem mënumaa ko ba xool koy xam naa ne mënumaa dem dem moom mënuma ko natt rek